asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet yu Senfootball TV ñuy ñu leen bu baax jeex leen di am saas saa defal leen vidéo tey nag dañuy ñëw wax si barrage coupe du monde barrage bi xamante ne fii ay semaine rek moo ngi ñëw moom suñu kanam mu ñu war a jàmmaarloo nag ak Égypte mu nekk benn match bu am solo euh, ndax dañoo jàmmaarloo ñoom final ñu ba dañuy fàtt ne tiro bi lañ leen gagné dugal ñu leen lii donc match yu métti la benn bi au cinquante mille places dina jaar nañ ko ba pare day fees del bi donc euh, stade soixante mille places et au retour aussi ñoom ñoo war a ñëw fii stade Diamniadio cinquante mille places mu nekk ñaari match yu nar a métti du coup nag temps yi dañu am benn seetlu benn seetlu la ñu am mooy que joueurs yu bëri ñoom hymne sang du Sénégal en club ñu titulaire ndax loolu problème la ndax du problème ñu bëri ñoom si la sama xaar ak sama gis-gis que mën na nekk problème mën na nekk un problème par rapport ak Coupe d'Afrique bi d'Afrique xam nga boo ñëwee Coupe d'Afrique bi xamante dafa amoon gaañ-gaañ blessé euh, gis première fois bi mu fulmi pelouse bi rek da ngay gis ne dafa am problème parce que amul compétition amul fraîcheur physique et que il faut mu soxla ay quelques matchs pour monter en puissance c' est le cas de Nampalys Mendy aussi bi nga xam ne dama woon jouer en club mais match bi c' est que deux matchs c' est que deux matchs léegi Aliou Cissé la la war a def tey jii nii euh, bu ñu waxee ne Edouard Mendy y' a pas de débat y' a pas de souci au niveau de Chelsea il est en défense Kalidou Koulibaly il est titulaire du côté de Napoli euh, mais Abdou Diallo du jouer du côté de Paris Saint-Germain est ce que mën na nekk problème. Je pense que à la place d'Alou Cissé, je vais abidjal Je pense que abidjal a assez d'expérience et a une belle leadership qui me Et du moment où je euh, ce club forme maintenant aussi tamit nous dem ba bien benn match bu am solo bu monde du côté de Paris Saint-Germain obligé de mettre abidjal donc c'est une défense bu il est le gars il est assez intelligent dans les placements elle est là même si il y na un problème tant que match bi ñëwul doo ko xam franchement tant que match bi ñëwul doo ko am et d'ici match d'ici euh, laa ko mën d'ici match boobu noonu espérons que en club jouer ce sera un peu compliqué hein, parce que du côté de France il bi dañ ko dindi coupe de la ligue am na ay temps nekkoon na fii dañ ko annulé carrément y a plus de coupe de la ligue en coupe de France mon na fa am temps de jeu Paris Saint-Germain donc on a une compétition de des championnat ligue des champions et que nous prenons des Paris Saint-Germain moo ngi équipe et que nous nous des nga franchement euh, que ça soit latéral gauche bi instant yii moo donc Abdou Diallo mu ngi Axel joué axe bi yaa Kimpembe Marquinhos donc Abdou c'est c'est normal que nous nous ci et que nous gagnons, koy ñaanal le que prochain mec, nous changer de club parce on dit que Barcelone ne de ko même si ça va être très, compliqué mon parce que Christensen c'est je bu nek Chelsea dem je pense pas que dina dem foofu donc peut-être pourquoi pas retourner en Bundesliga en Premier League mais pour ce match précis contre l'Égypte je pense pas que ça pose poser problème. maintenant il y a un autre joueur pour je jouer en club c'est plutôt Bonassa et Ibrahima Bay. Bouna Sarr jouons en club du côté de Bayern Munich mais Coupe d'Afrique on est en club mais le coup d'Afrique on carrément c'est pas un problème maintenant le problème bi fenn rek la nekk que Sabaly bi xamante ne moom moom poste Sénégalais yëpp xam nga xam ko autant pour moi du côté de Bétis il est quand même titulaire en Coupe du Roi euh, en Liga espagnole devant Bellerin ancien joueur de Arsenal bi xamante ne loolu wax ne c'est un un latéral moderne prometteur devant lui devant Montoya ancien joueur de Inter de Milan et de Barcelone donc euh, Sabaly match de préparation la gaañu woon loolu moo tax joueur d'Afrique mais ñëpp xam nañ ne Sénégal moom moom poste bu dul bu kii benn benn na laa wax Sabaly je pense pas parce que man bu la place d'Aliou Cissé entre Sabaly et Bouna Sarr foofu mën naa hésiter quoi défensivement parlant Massa Aleni je pense que benn Sabaly moo ñu gën a mën défensivement il est là c'est un la du may dara et et au moins retour tu peux mettre Bouna Sarr combinaison avec Ismaël Sarr offensivement parlant cinquante mille places stade du Sénégal stade Abdoulaye Wade ñu fees del je pense que Bounassar offensivement parlant mën na la apporter mais match aller je vois plus plus kii euh, euh concernant Ibrahima Mbaye du ñu de ce moment Ibrahima Mbaye je pense que Sabaly bu ñëwaatee rek il faut donc moom le fait que je joue en terme du côté de Serie A fële euh, Boulogne c'est pas un problème. donc on va parler de de l'autre jour c'est c'est c' est qui est Fodé Ballo-Touré nekk Milan le gars aussi en temps de jeu mais aussi c'est pas un problème vu que. Saloum si c'est possible les morts moom il est il est indiscutable donc faut bu faut fa bu perdre du temps avançons un peu parler de Nampalys Mendy bi du côté de Premier League avec Leicester aussi du jouer est ce que mën na un problème. pas euh, sur deux matchs deux matchs c'est c'est deux matchs mon moi moi may wax c'est compliqué nga nga jël benn joueur bu xamante ne manque nous manqué au Sénégal la andi dal euh, sentinelle Pur, récupérateur benn sérénité bi muy dégager lu mu lu mu ñëwoon Coupe d'Afrique si c'est le même match lu mu finale, final je pense qu'il doit être titulaire léegi Aliou Cissé est-ce que dina jël ben c'est pas moi Ben Cheikh Kouyaté Pape Gueye Gana Gueye est-ce qu'il va mettre ce trio là je pense pas je pense que le trio bi muy teg ce sera Nampalys ce sera Gana Gueye ce sera Cheikh Kouyaté Pape Gueye en deuxième mi-temps je pense que loolu lay def. parce que Nampalys Mendy aussi c'est un gars boo xamante ne ñoom xam nañ seen force xam nañ seen seen i qualité c'est un gars boo xamante ne il a quand même xam na le très niveau et espérons d'ici foofu match boobu noonu en club vu que jóge si réserve am naa kaa si u la nekk yóbbu yóbbu nañ si équipe A bi ñu am temps de jeu et je pense que Nampalys Mendy concernant Pape Gueye Euh, du côté de olympique de Marseille moo ngi am temps de jeu c'est pas comme Nampalys Mendy bi nga xam ne depuis Coupe d'Afrique du jouer carrément Pape Gueye moo ngi am temps de jeu donc euh, Pape Gueye aussi tamit c'est pas un un un problème. on va avancer avancer un peu parler de de Pape Matar Sarr Pape Matar Sarr tamit en équipe nationale du Sénégal di particulier et du côté de Messi aussi Anthony Tudio jox ko confiance bi xamante ne Sénégalais yi moom la ñu xaar donc moom bon pourquoi pas le match retour en deuxième mi-temps. Euh, avec euh, bal arrêté yi corner coup franc c'est un gars boo xamante ne mën na la apporter loolu mais je le vois plus en deuxième mi-temps et même Coupe d'Afrique nous ñun ñëpp wax nañ ba sonn mais taxul Aliou Cissé jox ko temps de ñu doon xaar donc moom en club du jouer euh, on va avancer wax ci attaquant yi attaquant yi kii en club c'est plutôt Boulaye Dia c'est un gars boo xamante ne on le voit plus Premier League parce que boo xoolee profil am physique joueur boo xam ne doo en profondeur sam naa eh, Espagne si plus championnat boo xamante ne dañuy téebal bi technique téebal beeg yooyu noonu alors que Angleterre intensité lañ lay a laaj daw def ay push lañ lay gën a laaj mais moom di côté de Villarreal récemment gis naa ko mu dugal bi cinquième bi si sama moom nax moom la ñu war a teg ndax waroon ñu ko teg poste bi la moom moom moo bëgg carrément xam naa itam dañoo wax ne c'est c'est le titulaire indiscutable il y a pas de souci parce que man je vois Sadio Mané un flèche je vois Ismaïla Sarr un flèche et je vois Lustum Blaja un gars boo xamante ni mën na daw et que Afrique boo gaawee rek da nga leen sonal défense mais actuellement place bi la moom moom ko donc joué en club mais je pense que Famara Diédhiou mën na def affaire bi juste surtout match aller bi ah match aller bi nekk match bu métti match boo xam da ngay dem ba au biir mbëkkante ak yooyu noonu et Famara Diédhiou peut être titulaire je pense euh, en attaque donc beneen jour bu xamante ne jour si plus Bamba Dieng mais Bamba Dieng aussi tamit dañuy jàpp ne xale la mooy boo jëlee ay daawati géej mu ngi woon fii championnat Sénégal donc c'est pas un souci pour Bamba Dieng c'est un gars bu xamante ne quand même joker et du côté de Olympique de Marseille mënoon na du titulaire c'est pas un titulaire indiscutable, mais quand même des temps des que ce soit euh, championnat, que ce soit ligue conférence, bon, mieux que des temps des heures. Donc, ce n'est pas, pas un souci. Les gens, vous voulez voir les joueurs, les joueurs, les ndax loolu question ma jëm ko tontu carrément ndax mën na nekk problème ndax mën na mën na bay nekk problème. mën na nekk problème pour un joueur xamante ne ki euh, na bu xamante ne amul expérience mën na bañ a nekk problème bu fekkee joueur bi jox na àq ak kooram maanaam un Sadio Mané par exemple dafa am un préparateur physique bu koy topp mais avant entraînement après entraînement day entraîné c'est un gars boo xam ne dañ di xool la lay lekk loolu c'est c'est très important un joueur de très haut niveau daa am mais bu mën na nekk problème bu fekkee da nga bàyyi maanaam nga toog ci banc bi am frustration géoto euh, chaque week-end da ngay toog ci sa banc euh, boo ñëwee équipe nationale du Sénégal doo ñu apporter quelque chose parce que da ngay teel a découragé doo am un mental de fer je pense que joueurs yi xamante ne am nañu ay un mental de fer Abdou Diallo il a ça man gëm naa ne joueur entre mais il a le Bouna Sarr je a rappelle avant coupe d'Afrique bi Sénégalais bi ñu wax temps de jouer du jouer club nangam nangam bu ñëwee coupe d'Afrique dañuy sonal euh, du am fraîcheur mais dafa yàgg wax na man du ma jouer en club mais bu mu ñëwee Sénégal dinaa sama bopp wane sama bopp il a un mental et franchement jàpp naa ne c'est un gars professionnel n'empêche man bi xamante ne jéewul aussi tamit la sa boo xamante ne il a 29 ans et le fait mu nekk réserve réserve bu U23 mosul découragé xeex na reyante na jusqu'à que Coupe d'Afrique bi mu ci banc bi alors que ñu ko woon teg ci banc man moo tax mënul nekk problème pour man pour parce que am na joueurs yu xamante ne waaw mën na mën nañu bàyyeekoo seen mental dafa des mais am na joueurs yu mag yi xamante ne du ñu bàyyeekoo Nampalys si la bokk Bouna Sarr si la bokk euh, et même Demba Ladiya si des joueurs yu xam ne dañoo bëgg wane seen bopp moo tax man boo ma posé question ndax euh, c'est un problème dama naan non carrément donc mbokk yi di mu nekkoon bi. ci eh, commentaire wax leen na seen xalaat ak seen gis-gis ma leen di jaajëfal di leen wax ba beneen suñu seen tubal TV.